Euh, di tenir benn point de presse rek par rapport à notre événement bi nga xamante ni moom la ñu waroon def xombol le 8 mars yàlla tàbbal ci ay ndogal ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi di sant yàlla di jul si yenente bi di jaale umma islamique bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Sénégal yépp di jaale euh, artiste bi nga xamante ni moom la ñu seqaloon te yàlla tàbbal ay ndogal ba li ñu namoon mënu la nekk muy balaa Balago Seck ñu signé woon ak moom un contrat en bonne et due forme mu waroon a produire Khombole un concert le 8 mars bu doon daje ak journée mondial de la femme ñu daje woon ko à toutes les femmes de la région de Thiès plus particulièrement à nos femmes de xombool yàlla dogal ay tàbbal ay ndogal ba loolu mënatul am ñuy tenir point de presse nag di édifier population bi nga xamante ni ñi ngi doon xaar loolu ci mbir moomu alors fan ngeen toll ci ci ci événement bi comme que mënatul nekk le mooy décision finale bi nga xam ne moom dañ jël ci événement voilà événement bi euh, euh, bi ñu déggee ndogal yi comme nit ñëpp ah sensibilité am nañ ko ci parce que ki fi jógee euh, ni mu nekkee sëriñu Waali la nekkee sëriñu Sénégal gépp comme Sénégal moom ñëpp xam ni benn bokk la quoi voilà bi ñu ko déggee on a on a on est on s'est on s'est mis en contact avec le manager de Waali Balago Seck jot ko bi ñu ko jotee ci la ñu waxtaan tënk xam ni report il faut que parce que kenn mënul ñàkk kilifa de ces de de cette envergure di di di di di tëgg ay événement si la ñu ñoom waxtaan en toute compréhension ñu d'accord ci report bi. report bi kañ ko waaw léegi comme que report bi am na euh, vraiment euh, dañu jàpp ñun que ni que puisque Wally dafa débordé si euh, mois d'avril bi yëpp. dafay def euh, anniversaire am au mois d' avril le 11 avril te ñun comme ni ma koy waxee rek Mbuur production dafa bëgg chaque fois di yóbbul dëkkam qualité di ko yu di arraché yoo xamante ni ku ko dégg di nga tax sa gémmiñ moo tax ñu bëgg bu anniversaire u balaa Waly Balaago bi jeexee le le le 11 avril le 12 ñu def raxas bi xombol incha allahu rabbi. bu production ñoom décorer ko am na ah, le huit le huit mars bi quoi journée de la femme bi Baye Ndiaye waroon tëgg far ñu tëgg ko. Euh, je crois pas loolu du lu ma yaakaar parce que ñun ay sénégalais lañu te si si si si ni ñuy doxalee ak ni ñu mel rek noonu la ñuy jàppee ni ñëpp noonu la ñu mel jàpp nañ ni euh, coïncidence rek moo am mais waal

parce que Baye Ndiaye est un jeune sénégalais qui a qui a œuvré nag waaw non waaw ah, mais il a œuvré pour non no non au moins man bày même si on n'est pas proche de par par la télévision de par les médias je sais nettement que c'est un c'est un jeune sénégalais boo xamante ni il n'a cessé d'œuvrer pour le Sénégal kon kooku du gis kenn ku benn Moustapha Mbuub jógee xombol am yéene yi satisfaire population di yóbbuwaale mu ciy jéem dara xalaatuma loolu

am na ay moyens yu bëri yoo xam ne tegoon ngeen ko jëm ci wàllu communication ak frais d'organisation yoo xam ne déjà lancé woon ngeen ko tey ñu reporté euh, date bi peut-être le 12 le 12 avril comme ni ngeen ko waxee lan moo nekkoon euh, programme bi ngeen doon bi ngeen bi ngeen bi ngeen tegoon tey ci wàllu euh, xëy na finance ci wàllu organisation ah ci ci ci wàllu communication également tey du ñu ko reporté le 12 est-ce que tey yeneen frais également du ci tegu est-ce que Mbour Production pare na pour gérer loolu la. y aura forcément des frais supplémentaires. parce que kuy qui di événement di euh, communication te la communication ne pas trop légère au Sénégal euh, du point de vue financier quoi voilà on n'a pas on a pu débloquer des moyens yu yu xaw a fort pour communication yéen xam ngeen ci dara y a des sites yoo xamante ni jot nañ fi ñëw te voilà euh, c'est c'est la communication yow jot nga euh, audio bi daw ci télé yi bi daw ci rajo yi di moins loolu tamit c'est la communication mais comme que ay ndogal tàbbi na te dañu jóg pour suñu dëkk bu méttee nii boo dawee rek li ngay li ngay li ngay li li li nga jëm tam koo ragal moo tax bu méttee nii rek daf ñu gën a moy force que ni ay ndogal la rek ñu delloo lépp borom bi te gën a làbbali fas bi rek noppi euh, ñooñu waaw ñooñu du ñu am benn problème ak ñoom. parce que euh, euh, jotuñu sax ñun jaay billet ñun par réservation lañ doon def pour plus de prudence. par réservation lañ doon def te ñi jot a bi billet jotuñu jot a joxe xaalis. am na nag ay autorités yoo xamante ni ñu ngi si dëkk bi vraiment am na lu ñu leen réserver roon comme des table te ñi nga xamante ni jot nañ ko ci fay seen ay tables ma ngi leen di xaar ba tey waaw kon boobu côté moom yaakaar naa amuñu ci problème quoi.

Euh, premier aspect bi mooy on compatit au décès loolu mooy premier aspect bi même bu fekkoon ni waali waruñu tëgg lu toll noonu dal ci moom keneen waroon ko tëgg mën nañu def report ndax ay nit la te am nañu sensibilité boobu quoi voilà. alors lan ngeen di préparer pour le mooy amélioration bi ce que événement bi le 8 xëy na amoon na lu des te ngeen fas yéene ko complété pour le 12 lan la production fas yéene jox public ko xombal pour le 12 avril. non le le 8 moom tout était fin prêt. puisque dañuy reculer pour mieux sauter moom dañuy yokk xar mi karaw rek puisque c'est pour xombol luñ ci def lu doy waaw parce que kii di kii connaît Khelcom Bache dem ba décrocher Khelcom Bache moo tax defar ay chapiteaux oto bi suba la waroon départ le vendredi la waroon départ fanaani xombol faramaaren otom tamit suba la waroon départ fanaani xombol kon xam nga ñun on était fin prêt on a on a on a un dispositif de 100 éléments bu escadron bu Thiès jot colonel bi yooyu yëpp nekk fële nga fay soda fay lépp kon li li ñu war a def ci bis bi yëpp def nañ ko mais comme que dañuy reculer pour mieux sauter nag dañuy gën a dolli rek pour dëkk bi bu ñu yëgsee ñu xam ni vraiment indi nañ leen qualité te on a mis le paquet quoi